bëggoon a waxtaane rek ci dellu ci yàlla ndax dellu ci yàlla moom waxtu wu nekk waxtoom la waaye rawatina waxtu xat-xat ndax yàlla kat des des fa warta jóge ba di fa delluwaat te mel na ne doomu aadama léeg-léeg mu xaw a lëj ba jéem fa jóge bu ko defee nag faaw rek suñ borom wan wan ko ay màndarga yoo xam ne jóge nga foo xam ne waroo faa jóge te da ngaa war a gaaw daal di fay delluwaat bu fekkee bëgg nga sa jàmm xat-xati jamono yeeg jafe-jafe yépp foofu rekk lay dellu moo tax kon ñu indi tomb boobu tey muy delluwaat ci yàlla te mooy tuub dellu ci yàlla nag daa war jamono bu ne daa war ci jëf ju nekk rekk jaam bi wane ci ak dellu ci yàlla alxuraan soññi na ci lu baree baree bari xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññee ci lu bari Sëriñ Tuubaa dund ko dund wu wér a wér a te doon ci yare te doon ci doxe doon ci soññee Sëriñ Saaliw mii itam ku ne xam na ni meloon ci dellu ca yàlla loolu lépp danañ ci tënk ay tënk yu gàtt rek bu ñu demee ci alxuraan day wax ci barab yu baree baree bare di soññee ci tuub te mooy dellu ca yàlla di wax ne wa tuuboo ilallaahi jamian ayuhal muminuuna laallakum tuflixuun yaa ayuhal lazina amanu tuubu ilallaahi tawbatan nasuha istaxfiru rabbakum suma tuuboo ilayhi yooyu yëpp di ay soññee yoo xam ne suñu boroom mi ngi soññu way gëm ñi ñu delluwaat ci seen boroom ndax seeni jafe-jafe mën a jeex ndax seeni xat-xat yàlla mën ko jeexal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam soññee bu baax ci dellu ca yàlla daan wax ne yaa ayuha nnaasu tuuboo ilallahi wastaghfiruuhu fa inni atuubu ilayhi fil yawmi mi'ata maratin mu daan wax na yéen nit ñi dee leen delluwaat ci seen boroom waxtu wu ne te di ko jéggulu man ñi nga xam ne maa leen gën mat nga xam ne man fa yàlla du ma fa jóge mukk waxtu wu nekk danaa dellu ca moom téeméeri yoon am beneen rawaaya bu mu wax ne bis bu ne danaa dellu ci sama borom lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon te moom ku ne xam na ne du jóge ca boromam ba fay dellu waaye loolu lépp ay soññe la ak suñ boroom rëy gum rëy goo xam ne jaam bi lu mu war a nekk ak lu mu war di def rek da caa war a delloo léppam ca yàlla da caa war a mat wane ak ma ak mankeem ak matuk suñu boroom yonent bi sallallahu alayhi wa daan soññee ci dellu ca yàlla daan wax ne ala unabbiukum yonent bi daan wax daan daan daan leen wax seen tawat ak seen garab gi koy saafara biñ ko laajee ne ko lan mooy suñu tawat mu ne benn tawat rek ngeen am te mooy bàkkaar waaye benn saafara rek ngeen am bu ko mën a saafara mooy delluwaat ci yàlla tuubal ko yàlla tuub gu sell kon jaam ñi seen jàngoro mooy bàkkaar mu mel ni jàngoro yu saahiri yaram yii sax bàkkaar moo koy jur ku ne xam na ne suñ tolluwaay yi jàngoro yu bari yi xew ku ne xam na ne bàkkaar yu bari yi moo ko fi indi kon ndeke jàngoro li ñuy jural jàngoro lépp mooy bakkaar yu bari jàngoro yu xew yi mën a doon ñi am bakkaar la ñëw ngir fóot leen ñi nga xam ni amuñu bakkaar mu ñëw ngir fàggul leen waaye ñoom ñaar ñëpp nag ñoom ñaari kuréel yooyu yëpp nag jenn saafara lañu am te mooy tuubal yàlla delluwaat ci moom ki am bàkkaar saa bu tuubalee yàlla delluwaat ci moom jëfandikoo na ordonnance bi nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindaloon na ko sa feebar boobu moom rek moo ko mën a faj ki nga xam ne amul bàkkaar itam te boobu dal na ci kawam bu ko jëfandikoo moom jéggulu yàlla dellu ca moom jëfandikoo na ordonnance bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bindaloon te mooy lépp loo xam ne daa ñëwoon ngir fangal ko fanqal ko ko wala mu ñëwoon ngir xëccal ko ko boobaa dana ci mën a jot mu mel ni kon jamono jii matukaay yi nga xam ne dañ dañuy wax ne moom la war a jëfandikoo ngir wattandikoo xat-xat yi xew ak tawat yi xew nañu xam ne jéggulu yàlla dara jiituwu ko ci dellu ci yàlla dara jiituwu ko ci xam nga danañ di wax ne dañ setal loxo yi nañ setal kër yi waaye nag nañu setal roho yi ak jëmm yi ci wattandiku bàkkaar ak tuub bàkkaar loolu day mel ni ni ñu fonke wàllug saahir gi dañuy wax ne nañ setal loxo yi loolu misaal la ci nañ setal roo yi roo yee war a gën a jiitu ci set mi nañ setal jëm yi setal jëf yi setal wax yi ci lépp loo xam ne luy jur bàkkaar la dañuy wax na nañ sorante waaye sorante googu it la cay baatin mooy nañ sori bàkkaar nañ sori wax ju ñaaw nañu sori jëflante gu ñaaw nañu sori def bàkkaar suñu diggante ak suñu boroom ak def bàkkaar suñu diggante ak suñu moroom kon yonent bi salaa sallam li mu waxoon ne benn feebar ngeen am te mooy bàkkaar benn saafara ngeen am te mooy jéggulu dañ mel ni moom waxam jooju ëmb na lépp loo xam ne rek jamono dana ko indi ndax saahir su ne am na baatin mu mel ni ni ñu sonne ci mesures barrières yi ñuy wax ci saahir nii nga xam ne ñëpp ci maase ba waroon a gën a jiitu nga xam ne moom waroon na jiital moom mooy de ñëpp àndandoo dellu ca yàlla ñu yor réew mi ni ñu sonne ci loolu dañ mel ni dellu ko ci yàlla noonu lañ ci waroon a jiitoo ñoom officiel ko di ko def ci seen barab ya di ca def ay wàcc alxuraan di fa jégglu yàlla di fa woo nit yàlla yi ñu dafa joxe ay dot ñu di fa jégglu yàlla yu mel noonu yonent bi nee na mooy saafara si nga xam ne dellu ca yàlla moo ñu mën a fajal suñuy ba suñuy suñuy jàngoro kon loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon na ko mu mel dellu ca yàlla day indi mbégum yàlla te yu baree bari ci ay xat-xat merum yàllaa koy indi kon lépp luy indiwaat mbégum yàlla mën naa dindi xat-xati jamono xat-xati lu mën a doon te yonent bi sallallahu alayhi nee na nit ki bu dee tuubal yàlla suñ borom day bég ci moom bu ñëpp maasoo dellu ci yàlla suñ borom day bég mu ne te ma ni ma ko mën a ni mu ko mën a misaale mooy ku yoroon ak giléemam wala otoom rek def ci lekkam ak naanam yépp am fu mu bëgg a dem daal di teg giléem gi ci bitti nag dugg ci biir ak ñëw fekk giléem ga réer dem yóbbaale lam ca taw defoon lépp mu di ko wër di ko wër ba sonn ca lool dugg àll bi di ko wër ba defe na moom du ko gisati mu gis genn garab nag naa noppalu fii ab diir door a sama wër waaye xam naa sax duma ko gisati naagu na ci bi mu toogee ci garab gi nee na jékki-jékki rek siggi rek gis giléem gi taxaw ci kanamam nga xam ne mbégte moom muy am ak kontante googu nga xam ne bi mu gisee giléem gi sax daa saalit ba dana dana yow yow yow sama jaam bi yow yàlla sama jaam bi man sa borom bi maa ngi lay sant bu baax a baax a baax ngir mbégte mu ëpp mu jéggi dayoo moo tax sax li muy wax xamatu ko yonent bi salaa salaam suñ borom nag noonu lay bëgge ci jaam ñi saa ci moom di ko jéggulu seeni bakkaar ak seeni rëcc rëcc te mbégum yàlla fu mu wàcc jàngoro dana fa tuxoo xat-xat dana fa tuxoo xéewal dana fa wàcc naataange dana fa wàcc kon jamono jii ñu bay wàcc xel bu baax ba tey suñu boroom bëgg gum bëgg kuy dellu ci moom tax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne suñu boroom day guddi gu ne dana tàllal loxoom bi ba bët di set bu tàllalee loxoom naan ana kuy ji ana ku may lu ma jéggal la anu ko may jéggalu ma jéggal la mel ni kuy woo jaam ñi ci ñu jéggalu ko ngir yërmaande mën a wàcc seen kaw nee na bëccëg gune suñu boroom dana tàllal loxoom ba keroog jant bi di so di wax ne ana ku may jéggalu ma jéggal la ana ku may jéggalu ma jéggal la xanaa kooku kon yërmandeem ak bëggal jaam ñi naataange ak bañal leen xat-xat loolu foofu la mën a yem ba tey ci ak yaatu njéggalam wax tax na yonent bi salaa salaam wax ne suñu boroom li fekk nit ki àggagul ci sukuraat saa bu dellu see ci moom jéggalu ko suñu boroom dana ko jéggal inna allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi maa lam yugargir li fekk gul ci xamatul ci boppam dara mi ngi ci xarxarle war a dellu ci boroomam fu mu jéggaloo yàlla rek suñu boroom dana ko jéggal loolu nag lu mat a bàyyi xel la gannaaw xar-xarle moom luy bette la laa taatiikumu illaa baxtatan suñ jamono ji gis nga kuñ naan léegi la toogoon fii feela yendu waaye dem na loolu lañ ciy dégg rek mooy kon jégglu moom waxtu wu nekk la ko jaam bi war a def ndax xamut kañ la ko dem di dikkal te suñ tubaa wax na ci mun na yor sudóor ne al ku dëgg dëgg dëgg texee di dëgg dëgg mooy sàggan ba faatu yóbbaale bàkkaar boo xam ne tuuboo ko te amoon ay occasion yu dul jeex te loolu mujj gu ñaaw sax daanaka bu ñu koy wax lu mel noonu moo tax ñu du ko wax kon moo tax jaam bi fu mu toll rek war nay bàyyi xel di delluwaat ci boroomam ñu xam ne itam suñu boroom dara lu rëy ci moom loo xam ne du ko jéggale amul lépp la mën a jéggale lu waaye def lu mu rëy rëy rëy rek daa mel ni du dara ci njéggalug suñu borom gi yonent bi salaa salaam mi ngi ci jàngale nee na ñu leen jiitu woon da ci amoon benn waay boo xam ne dafa rey téeméeri nit yu manqué benn la rey ak rey nit ni mu toll kenn nit rek ni mu toll nee nag benn bis mu tëdd rek waxtaan a ak naa yam tiit ci boppam lool ne man daal xam naa ne moom yàqule naa sama mbir du baax a baaxati mukk waaye nag xelam di xalaat rek mu daal dem ci nit ñi ne leen daal dama bëgg ngeen laaj ma képp xam-xam ci gox bi ma dem laaj ko sama mbir ba xam man mën na mën na mën na maa tuub wala mënu maa tuub ñu tetal ko benn nitu yàlla mu dem wax ko ko na ko man kat damaa rey téeméer nit ñu manqué benn ndax bu ma yàlla dana ma jéggal mu ne ko yow rey nit ni mu toll kenn nit dong la ci yàlla wax rey ko ni mu toll nga rey téeméer nit yu manqué benn yow nga xamuma fenn fa la yàlla jéggale mu ne kon naa la rey mu mat téeméer gannaaw xas naa bay taq moom naa taq bu baax rek ba mu ko reyee mu mat téeméer téewut mu continuer di tiit ci boppam rek di xalaat rek ba yàgg mu am ñoom laajaat ne leen ndax xam ngeen fi benn borom xam-xam boo mën a laaj sama mbir ba xam mën na maa tuubam déet ñu am kuñ ko tegtal mu dem ca moom ne ko mën na damaa rey téeméeri nit ndax suñ boroom dana ma jéggal mu ne ko waaw waaw kenn mun a dox sa diggante njéggal yàlla loolu du dara ci moom daan ne ko da ngay dem ci suuf soo xam ne musoo faa mooy yàlla barab boo xam ne musoo faa mooy yàlla daat koy wax ab barab na ko da fay dem ay nit a nga fa di jaamu yàlla boo àggee nga ànd ak ñoom di jaamu yàlla te suuf see nga defe woon ñaawteef yooyu ba ñu faa delluwaat mukk ndax suufus ñaawteef la ci yow muy dem foofa bi mu demee ba xaajal yoon wi daal di faatu ba mu faatoo malaaka yërmande yi ñëw malaaka yi mbugal yi ñëw ñu di ko xëccoo malaaka yërmande yi ne kii moom xol bu rafet la faatuwaale ndax amoon na yéene génn ci ñaawte fii mu nekkoon delluwaat ci boromam kon ci loolu lañ ko war a àttee malaaka yi mbugal na leen kii ko àtte ci loolu donte amoon na xol bu rafet waaye lim def mus sa def lu baax kii ci lu bon dong la nekkoon kon lu bon loolu mu doon def ba noppi nga xam def na moom lii ko yéenoon waaye defugu ko kon ci li mu def ba noppi lañ bañ nekkee ci loolu suñ borom daal di yebal benn malaaka boo xam daa yor melokaanu doomu adama ñëw na leen waa lu mu doon ñu wax ko la ñuy werante mun ne leen man am naa ci xalaat ñu ne ko yow waa waxal mu ne léegi nañ natt fi mu jóge ak fi mu jëm fu mu ci gën a jege ñu àttee ko ci loolu fi mu jógee fa la defee lu ñaaw li mu doon def fa mu jëm fa amoon yéene def fa lu baax nañ natt ñaari barab yooyu fu mu ci gën a jege rek ñu ko foofa bañ ko nattee mu gën a jege fa mu jëm ci sibra ñu daal di koy ñu ne kon nañ ko bàyyeek malaaka yërmande yi ñu àgg ñu yóbbu ko ñu bàyyi ko malaaka yërmande ñu yóbbu ko kon loolu da yonent bi dañ doon jàngale nag da dara dara dara lu wa lu bàkkaar rëy rëy rëy fu mu nit mën a jaar ci ay jaar-jaar yu day waar rek na xam ne saa bu tuubee lee yàlla suñ borom dana ko jéggal ndax rëy nit li muy rëy rëy rëy wedd yàllaa ko gën a te suñ borom daa waxoon ne yonent bi xul lillazina kafaru iyantahu yuxfar lahum ma qad salaf ñi wedd ne leen saa bu ñu tuubee rek li jàlloon lépp yàlla amatu ci soxla kon nañ xam ne suñ jamono jii nga xam ne jamono ju xat ju bari ay xat-xat la te ku ne xam ne ne da nga daan dégg ci ay ñaawteef yoo xam ne boo ko mosaan a dégg danga nga toog lu mat fukki at wala ñaari fukki at door koo déggaat ñu àgg ci jamono joo xam nag daa jékki-jékki rek tegaloo bis bi seet nga dégg loo xam ne danga nga naan lii moom tey àdduna dana tukki mel na yu mel noonu bi mu baree rek te lañu yàlla tàmbalee woon boppam waaye nañu xam ne loolu la muy rëy rëy rëy rëy saa bu ñu maasawaatee ñun ñëpp rek ànd dellu ci suñ borom suñ borom mën na ko fi jëlewaat ni nga xamee na moom rek moo ko fi indi woon te moom rek moo ko fi mën a jëlee